asalaamaaleykum mbokki Safo 7 TV bisimilah ci xibaaru digg bëccëg gi ci kalamay wolof niski su jukki leen li gën a fës dina ci bokk lu bi teg l'école Guilé ji ci altine ji juróom-ñaar fan ci weeru octobre toll ci ci ay ndongo daal dañuy dem nag ci bërëbu sàkkwaayu xam-xam yi jëwriñ ñu dénk wàllu jàng beeg njàngale mi di Moustapha Guirassi daan nay def nag ab dukki nemeeku ci yenn ci ay bërëb ni ji xool lu bi yi nu mu demee waaye am na nag ñoo xam ne ñooñu bokk na ci euh, fii ci Wakaam ci CM Abdoulaye euh, El Hadji Mamadou euh, Ndiaye addu ci wàllum politique ak jongante législative yu 2024 yilee jàppale na nag waajtaay ga ña nga ca ndax liste provisoire bi ni tey ji lañ ko daal di fësal DGE def lu ñu mel ñi nga xam ne dañ ne rek gàntal am ñu benn fan ngir clamer ca conseil constitutionnel ngir rek ndaje wu am solo woo xam ne rek daanaka day euh, firndeel euh, anam gi nga xam ne rek noonu la ñuy euh, defee nag jongante yi rawatina nag tëralin yi nga xam ne doon lañ takk ngir ñi nga xam ne bëgg nañoo sóobu ci jongante gi mbokk yi léegi a fas ba leen taaxiloo ñëw a gën ci atal gi. jaajëf leen bu baaxa baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV euh, dañu koy tàmbalee ci tënk wàllu njàng beeg ñàggale mi tey di altine juróom ñaar fan ci weeru octobre bi ubbi na ci ndongo yi toll ci ñeenti million nag ci ndongo yi ñoo dem rek ci bërëbu sàkkuwaayu xam-xam yi Moustapha Guirassy sol dàllam dem na ci yéen ci ay bërëb xool rek ubbite gi nu mu tëddee daanaka xool bu baax a baax ci groupe scolaire Mikado waaye itam programme yi nga xam ne itam day ñeel ca cathédrale yi Amadou Bamba Mbacké ak lycée CM bu Lamine Gueye ci rek euh, fàttali nag euh, ñi nga xam ne rek ñoo di jàngalekat nañ ñoom ci ñetti fan ci octobre gi weesu lañ daal di ubbi. ba tey dañuy wax ci ubbiteg l'école gi niki tey jii ci altine ji suñu ndaw daal dem ci yéen ci ay bërëbu sàkkuwaayu xam-xam bokk na ci seen El Hadj Mamadou Ndiaye foofee nag ubbite gi daal demewul noonu waaye tam ña fa teew ci ay ndongo lim gu néew la école élémentaire El Hadj Mbaye tamit ñoom daal dañu tàmbali njàng mi niki ji ànd ci ak Modou Conté ba supp ubbi teb école bi ñu nemmeeku ni li mu ndongo yu ñëw jàng si néew na lool ca CEM El Hadji du Ndiaye naam ndaw yaa ngi foo kafre ci ëtt bi waaye ba tey ceeb inscription la ñu toll. ñoom classe bu ne taf nañu listam pour que xale bi xam ni man classe bii laa nekk ak emploi temps bi pour mën a nekk dans su logique ubbi tey jàng tey ba sax am na classe su troisième bu démarré woon à huit heures benn cours de français mais quelque ay presque cinq élèves rek a ñëwoon quoi. ca école élémentaire bu El Hadji Mbaye nag naam matalaguñu ñoom tamit li mu ndongo yi ñu doon xaar waaye ci bile bërëb concept ubbi tey jàng tey moo ngi mel ni jëfe nañu ko. ubbite école bi jaar na ci yoon ndax tey comme niñ ko gisee jàngalekat yi ak élèves yi ñu ci biir classe yi ñu ngi jàngale xale yaa ngi suivre di participer. mu di ndoorteel bi nga xam ne nii parents d'élèves yi am nañ ci contentement. ubbite ubbite école bi moom. wax dëgg fa yàlla gis naa ci changement bu baax. ndaxte da nga doon ñëw fekk rang bi bëri fii xam nga mooy loolu yaa ma gën a xam te ren teel nañu ñoom doyen teel na ubbi moom day ubbi tey commencé jàng ay kii woom commencé jàng tey commencé jàng. maire bu commune bu ma mu jàpp ni disposition yëpp jël nañ ko ngir rentrée scolaire bu mucc ayib. li ñu gis tey ci suba. Euh, école yi moom pare nañ franchement euh, les toilettes sont fonctionnelles euh, écoles yi set nañ on a tout nettoyé et maître yaa ngi fii léegi xale yi la ñoo ñoo manqué. ci fàttali atub ren bi nag lu ëpp ñeenti million gu ndongo moom la ñuy xaar ngir ñu delluwaat ci classe su l'école yi ba tey ci lu soxal ponk googee ci biir réew mi ca Ndiawdoune féetewoo ci département bu Saint-Louis itam juru donge yi dañoo lank ne daal seen i doom duñu rek lubbite ci lycée wa nga xam ne day dalal lu toll ci eh, juróom-ñetti téeméer ci ay eh, doomi aadama ndax jàpp ne daal boobee bërëb bu sàkkwaayu xam-xam màggataay wi dafa rek jéggi dayoo eh, te lu bare bari ci jumtukaay yi nga xam ne ndongo war nañ ko mën a jëfandikoo itam dafa am gàllankoor. parce que lycée bi parents d'élèves yi nennu tant que les conditions ne sont pas réunies pour école bi ubbi dañu téye seen ay doom parce que mënuñu jël seen ay doom jël yóbbu si lycée bu nga xam ne amul ndox te fii mu nekk ay xaleel jàng ay jànq magum jëmm ñoo fiy jànge te ñooñu fu ñuy jànge war nañu am toilette yu baax war nañu am ndox mais mënuñu jàng fu nga xam ne fii amuñu ndox bi si gën a grave encore même ren yi am nañu trois classes série S yu nga xam ne dañuy def euh, examen terminal amuñu professeur de maths état ñëw jàppale ñu taabal ba amuñu ko ba pare ñu am benn déficitu trois salles de classe yu mu nekk nii bëgg nañu salle de classe bëgg nañu ku ñu fayal courant parce que courant ak ndox moom mënatuñ ko fay il faut état jël ko en charge gardien mënatuñ ci jël en charge connexion mënatuñ ci jël en charge kon li ñuy ñaan daal état ni ñu jàppale bu ñu ko defalee parents yi daañu téye seen doom ba am lu ñu bëgg parce que condition yi état bi lii si bi nekk condition yi ñoom parents yi noonu mënuñu indi doom ñu jàng si condition te mooy loolu dañuy àddu jëmale ci wàllum uh, koom-koom ak itam gis-gis gi nga xam ne ba woon nag ci réew mi Bassirou Diomaye Faye uh, ginnaaw rek xalaat yi nga xam ne ba woon na ci FMI liggéey bi nga xam ne nguur ak Sénégal def nañ ko ci koppar yi nañu ko daal di yore uh, tax na nag ba ñu bari daanaka yi ci yàb bi mu mel ni nag ñu ci réew mi Bassirou Diomaye Faye jaarale ko ci compte X daal di na bu baax a baax xalaat yi nga xam ne ba woon na ci FMI waaye tam dëggal lekk taxawaayu kaa Sénégal ci na nga xam ne na fas fas ne daal yore réew mi ci wàllum koom waaye itam lépp rek ne daal du ko fas yéene leeral ñeel nag marché euh, public yi ba tey jii ci xët googee nag la ñuy daal di des FMI dafa mel ni daan ne rek waxee xalaatam ànd rek ci liggéey bi nga xam ne nguur gi daan na koy def bokk na ci saytu bu baax kopparum réew mi nañu ko yore woon waaye tam li nga xam ne rek moom lañu ko fii euh, fekk Abdoul um, Abdoulaye Mbow mu itam daan na yëkki nag ay xalaatam ñeel wàllu wile jàpp na daal mooy ku jege ak génn yi nga xam ne dinañ ko génn war nañu xool bu baax a baax li ñuy wax laataa ñuy ŋaññi li nga xam ne mooy audit des finances publiques ñoom def euh, nguur gi def na ko FMI gis nga ni salué na ko lii nga xam mooy perspective yi FMI tam am na loo xam ne wax na ko si te loo xam naa ni mën na jariñ Sénégal si kanam si si li nga xam ne yàggul nguur bu waxee balaa nga kaa weddi dafa fekk yow nga am loo xam ne lu wóor la am loo xam ne fu nga ko teg la waaye ñëw taxaw rek ne li li lu ñu contesté amul lu ñu wax amul wékkoo ko fenn parce que gérer budget ne mosoo nekk ministre mosoo nekk si biir gestion nguur pour véritablement mën a teggi mun nga remettre en cause mun nga remettre en doute waaye nag weddi ba nga xam ne da ngay weddi ba teggi lépp amul foo xam ne war nga ko fa mën a teg donc FMI nag bu ñëwaatee am na mu waxee defe naa ni c'est une bonne nouvelle par rapport ak li nga xam mooy sortie bi nga xam ne autorités yi def nañ ko si euh, wàllu gestion des finances publiques ba tey ci wàllum koom agence Moody's Corporation itam daal nay fësal gis-gisam Sénégal deltu ginnaaw bu baax a baax ci xamee nga xam ne fësal na ko loolee nag boo mooy li naa ay njeexital bu ñu sukkandikoo nag ci ministre bi di Abdoulaye Seck nguur gi nag day firnde rek ne am na nañu mbëbët nag déggoo daal di am waaye ñu fexe rek ba wuti saafara ci file waaye itam fexe ba mën a rek lëkkaloog FMI ci wàll woowee ana ci ànd ak Oumar Thiam génnum état bu Sénégal ci situation koomu dëkk bi nag juróom fi wax ju bari wante nag ak kayit bi nga xamante ni Fonds monétaire international daal dina koy fësal dafa mel ni rek lu ñëw ci waxtoom ngir jàppale l'état bu Sénégal mu daal di doxal ci anam yu set ak yu leer nañ soxal nag koomu dëkk bi. PIB bi ñi dañuy jël nominal ñi jël PIB a alors que PIB bi moo solo PIB nominal bi parce que PIB réel booy jël en charge inflation bi donc yu baree baree bari yooyu boo ci dee dindi di ko xool. ci ay milliards boo ci dee jël ay 3 pour cent écart fii ay 2 pour cent ay 5 pour cent écart boo xoolee bu yàggee day xaw bari donc effectivement am na ay ay ay waroo yu ci am parce que base de calcul yu bokkul. du ñàkk Sénégal dal di nekk ci ay rëq-rëq. dana am ay quelques difficultés mais nag xaj na ak orientation yu leer ak gis-gisit bu leer vision bu leer ak ay actes yoo xam ne dañ koy encadrer décision yi ñu jël dana mën a yombal lu bëree bëri. ci difficulté yi ak si yi danañ mën a soulager na génn feneen. effectivement ci subvention yi effectivement ci ciblage bi mais effectivement également ci dépenses yi nga xam ne lu ay dépenses prioritaires ak ni ñuy répertorier dépenses yi di xool fi mu gën a ñëwee ñu def ko fa. ñu daal ci ciy sof yeneen weccoo leb wala sax wëri koppar ca niveau international. Eh, teewul nag Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mënees nañ cee génn ci jàmm ak salaam lu ko waral ak moo di Fonds monétaire international maanaam FMI moo daal andi njàppandalam. déjà la mu doon santaane ak la mu doon wax mooy fexe leen a li ngeen di fekk ne ñii ñoom taxaw ni effectivement wane volonté ne ñoom ci loolu lañ bëgg a dox ci la ñuy kii ci seen orientation yi foofu lañ ko jëmee kon FMI ak gouvernement bees bi fi nekk du ñu am benn jafe-jafe pour déggoo ci li ñuy def pour nga xam ñooy population sénégalaise mooy ñu xam ni aussi euh, ajustement ñu xam ne aussi réajustement yi ñuy def liggéey yi def dana laaj ay effort ci kenn ku ci ne individuellement et collectivement mu ñu sukkandiku ci ki xam-xam màcc ci wàllum koom Abdoulaye Seck li gouvernement bu bees bi nag daal di assumer ay responsabilités am soxal nag dette publique bi loole moo koy jàppale ba fii ak diir gu gàtt incha allah ñu daal di soppi situation financière bu dëkk bi. jërëjëf Martiam dañuy tey ci ràpp xër gi ñu jagleel wàllum koom addu ci wàllum politique ak waajtaayu jongante pencum daayu réew ma ni ki tey jii bànqaas bi saytu wot yi di DGE daata ñuy fësal li sugu njëkk gi ñeen ñi nga xam ne rek ñoo jëbaloon nag seen ay këyit ngir bokk ci jongante gi muy rek ak app bu am solo ci jamono ji nga xam ne nii ay xabaar doon na wasaaro ni ki ci suba nag ak nigi ni ñeen nga xam ne rek ñoo toftantalu ci rek liste yi bokk na ci bu Pastef nga xam ne ni Ousmane Sonko moo na ca bopp Ba waaye itam coalition bi nga xam ne itam ki fi nekkoon imaanu jorin bi di Amadou Ba ak Macky ba ci Barthélémy Dias ñoom seen ay liste daanañ koy euh, fësal euh, waaye ñu gis ci nag ay tur yoo xam ne daanaka ay kilifa lañu woon ñenn ñi nekkoon sax ay candidat ñenn ñi nag nekk rek ay xarkanam yu yees yoo xam ne daanaka indi nañ ko luy firndeel na daal ñu féete woon ak ci gi ak woo tam ci nguur gi li ñu bëgg rek moo di boolantoo seen i doole ci nekk ci ñoom rek ngir mën a am ay yu bëri ca pencum euh, ndawi réew ma addu ci beneen xët day ñeel ñu turéem woon di Macky Sall daanay tekki ndombal tànkam ci rek 4P euh, bu Paris ginnaaw rek euh, ba ko njiitu réew ma di Emmanuel Macron daal di koy euh, tabbe daan nay fësal ne daal génn na nag ci liggéey woowee li ko waral bokk na ci waajtaayu jongante pencum ndaw réew ma mi nga xam ni itam coalition bi mu nekk tëdd faw faaw rek mu daal cee nag jox àqam bu ñu sukkandikoo nag ci Abdoulaye Mbow xelam màcc itam ci wàllum politique dellusiwaatu Macky Sall ci réew mi ba muyul daal mën na am ay njeexital yu doy waar. ñu daal di koy tabb mu doon tête de liste coalition bii di takku wàllu Sénégal njiitu réew ba woon Macky Sall fas yéene dellusiwaat fii ci Sénégal ngir daar di bokk ci élection législative yi boobu la démission nag kii di journaliste Abdoulaye Mbow moom mi di ko jàngat. bu dee démissionné na euh, fëy nga xam ne moom lañ ko dénkoon ci ka ko dénkoon doon président France parce que moom bu muy nekk président France lan nangu beneen président proposé ko ab poste euh, si li nga xam ne mooy liggéey bu ñuy duppee si li nga xam ne mooy wàllu 4P léegi nag nee nañ dafa démissionné parce que dañ koy investir amaana moo war a mën a doon tête de bi ñi ngi xaaral na tam ñu publier euh, suñu publier liste yi daañu xam ndax am moom la ñu jël comme tête de liste donc bu ñu ko jëlee comme tête de liste nag euh, su wàllu boppam moo war a ñoo battre campagne. bu ñu sukkandikoo ba tey ci moom dellu si Macky Sall fii ci réew mi dina daal di tey xëy lool bu ñu xalaatee li nga xamante ni nii bàyyi na ko fii ak lu fi jotoon xew. bu mu yoree réew mi. si wàllu bilan surtout immatériel ak li nga xam mooy répression yi fi amoon ak li fi faatu si doomu aadama ak fi tëj si doomu aadama ak li nga xam ne teg na ko si ay ndësa kërëk pour véritablement mën a am troisième candidature am boobu mënta musul antu mu ko lëkkaloo ak kii nga xam ne moo di Karim Wade ba ñuy fii andi ay waxu guerre si wàllu conseil constitutionnel ba ñu reporté woon bëggoon reporté élection yi ak lu fi xew lépp juróom benn weer après nag nga ñëw nga nag damay jàkkaarloo ak askan woowee askan woowee nag moo am li nga xam sañ-sañ naka lay réagir sañ-sañ ndax dina ko nangu sañ-sañ ndax dina la bàyyi sañ-sañ boobu yëpp askan wi si askan wi la dépendre loolu nag la ñuy xool ak moom lan lay andi si li nga xam ne mooy euh, kaddu si lan nga xam ne lay andi comme programme. est-ce que dellu si Macky Sall fii ci réew mi narul jural ay jafe-jafe gouvernement bi fi nekk. non mënuñu wax ni ñu bari ñu ngi commencé di weddi parce que amul fenn foo xam ne mën nañu wekk ne ñu bari ñu ngi weddi parce que waxin ak dégg-déggin ñu ne weddi nañu ñan la ah, parce que amoo unité de mesure. amul loolu xam ne sondage la pour wax ni effectivement ñu bari ñu ngi commencé di weddi amul fenn foo xam ne mënuñ ko faa wéet léegi nag askan wi moom moom boppam askan wi mooy raay jural boppam askan wi mooy mooy am nu muy gisee ci diwaanu Padoa joxnu ñu dénk ndaw ñi ak jigéen ñi nag moom dina amal rek ab set setal eh, ci dibeer gile mu mel ni dafa rek wuyu eh, woote gi nga xam ne ba won nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye eh, tax na nag ba Maimouna Dieye ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey wa itam jëli ay jumtukaay yi nga xam ne ndongo dañ koy soxla ci dubbiteeg école itam daa leen koy jébbal ngir jàppale nag waajur yi tey nag li ñu fi indi dafay loo xam ne dafa jëm ci accompagner ki nga xamante ni mooy président de la République du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xam ne mooy initiative bii mu euh, jël muy initiative boo xam ne dafa rafet initiative boo xam ne Sénégal mënuñu koo defar tànk jàppuñu ci lu mel nii pour mën a dem parce que nag dafa am nit nu muy bëggee développé wu xëy na am na yenn mécanisme yoo xam ne lu jëm ci liggéey bi lu jëm ci finance lu jëm ci économie lu jëm ci lu lu bare bare bari waaye tant que amuñu cadre de vie bi nga xamante ni moom la ñu war a am environnement bi nga xamante ni moom la ñu war a am loolu du mën a nekk. Sonaged ni ko sama frère du waxe moom tey boo ko fekkee Côte d'Ivoire wala mu dem ci zone mois wala CEDEAO respect bi ko nit ñi jox ak sensibilisation ni mu koy defee da xam ni kii citoyenneté xam na mooy lan. moo tax dañuy woo mbokk Sénégal yi ci éco citoyenneté éco responsabilité ak éco geste. fii may wax ak yow tey am nañ yaakaar bu baax a baax ni les trois écoles primaires de la commune yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy école Padois école Soprim ak école Grand Mirine ubbi tey jàng tey bi war na fa mën a effectif ndax lépp loo xamante ni mairie war na leen ko gunge rek gunge ne leen ko. addu ci wàllum tàggat yaram ci diwaanug Ziguinchor foofee nag jongante wuñ jagleel wàllum jàmmoo gi dox nag ci militaire yi ak ñi nga xam ne ñoo newoon ci kuréelu way ya nekk nag loo xam ne dafa jeexee ci ci rob ñu ko jël nag di kuréelu ko way fuppi yi ba tax na nag bu ñu sukkandikoo rek niki rek ci at bi que ñu ko jagleel ji feu Amadou euh, Wage mu nekk nag jongante waam solo woo xam ne mu sukkandikoo ci kilifay gox ga li ko tax a jug rek moo ji fexe ba jàmm del si ci diwaanu Casamance Manding ñu ngi fii ci Brika Manding 1 pour nag ñi nga xam ne ñoom ñoo xam taarix bi moom ex combattant yi doon duppee jàkkaay ñu ci bëri fii la ñu woon lu taaru nag moom moo ñu fi indi moom mooy jongante xarito yi nga xam ne amaloon nañ ko fi ci kilifteef autorité civile ak militaire yi fi ne ñu ngi ko duppee sous préfet feu Amadou Wagué ci arrondissement Kataba 1 ñu koy delloo njukkal bu baax a baax. yeneen i kilifa yi ci mel ni Malang Diedhi ñu fi tournoi bi nag li ko tax a jóg moom mooy fexe ba askan wi yëpp daal di dund jàmm waaye tamit armée sénégalaise ak yi lekk faction yi fi newoon li yëpp di firndeel suñu slogan bi ñuy doxantoo di armée nation. les autorités civiles et militaires pour vivre la paix la paix entre les bi nag ngeen koy xayma moom dina des ci suñu taarix li ni yëpp bu ngeen ko gisee li muy firndeel moom mooy jàmm am na fi te jàmm dana fi gën a sax loolu ñu tax a jóg. qui ont joué aujourd'hui un match historique. ba tey ci wàllum tàggat yaram ci tënk bi la yoon kaaf daat nay fësal nekkite ji suba tirage au sort bu ñeel de la ci groupe C wi dina ci ñengo ak OSM bu Algérie ASEC bu Côte d'Ivoire Opera United bu Botswana jàppale na nag ci phase de groupe yi nga xam ne daal na ko fësal nañ ko ba noppi jaraaf rek moo ci nekk club bu Sénégal bu bokk nag ci bi la jongante pour yi nag moom daal nay dëxëñ lu toll ci fukk ak juróom-benn ca équipe waaye groupe bu ci nekk rek rek ñaari équipe dong ñoo ci war a euh, qualifié. ba tey jii lu ñeel xabaaru tàggat yaram yi ci tënk jàppale ne fédération sénégalaise bu football indi na ay leeral ñeel nag la soxal gaynde gi di Ismaïla Jacobs ginnaaw rek ba ñu ko forfait ci liste bi nga xam ne fësal nañ ko ñeel ñaari jongante yi war a dox ci Sénégal ak Malawi yi waaye itam na nga xam ne rek noonu la club am taxawee ca mu ne nag boobeek bataaxal bi nga xam ne rek waa fédération sénégalaise de football fësal nañu ko na daal sàkku nañ ca këlëb tàggatu nag ñu bàyyi ko ca nu mu gën a gaawee moo néew fii nag ci équipe nationale daanaka sàlloo la nga xam ne rek moom la daal di mooy wareefam waaye itam indi na yeneen i leeral bokk na ci itam boo moyul nekkitee ji ci altine ji moom Jacobs dina ñëw waaye nag joueur bi di Abdou Aziz Ndiaye moom la ñu woon rek ngir mu remplacer ko waaye dafay rek des ci tanière bi ba tey jii lu soxool wàllum euh, tàggat yaram dañuy wax ci championnat bu karaté cadet euh, ak euh, junior yi nga xam ne ñu ngi ko jàpp njëriñ ñetti fan jàpp fukki fan ak juróom ci weeru octobre bu moytu nag Sénégal doo ci daal di dem li ko waral bokk na ci ñàkk dëggoo goo xam ne rek njiital fédération bi di Mouhamed El Makhtar Diop fësal na ko seen diggante ak waa ministère woowee donte nag fi mu ne daal ñu ngay waxtaan luñ ca daal di mën na bëgg nañu rek waxtaan yooyu nag am ca cappaandaw ga ak dékku yaakaar que ni ak résultat yi nga xam ne karaté defoon na ko championnat d'Afrique championnat du monde yi xale yi dinañ dem défendre seen résultat yi donc wala euh, voilà mais ba léegi amuñu benn nouvelle donc ça veut dire que peut-être xale yi duñu mën a Euh, participer donc euh, vraiment du loo xam ne dina jëm loo ka sport sénégalais ci ci ci kanam donc euh, bu ñuy wax affaire JOJ préparation bi commencé na depuis longtemps donc compétition yu mel nii yëpp pour préparer loolu la boo defee championnat d'Afrique nga am ñetti médaille d'or benn médaille d'argent ak benn médaille de bronze yaakaaroon nañ ne lu mu néew néew néew ñi nga xam ne sax defoon nañu résultat dinañ dem ci championnat du xool ñoom seen niveau laal te am nañ ay athlètes yu xarañ yoo xam ne amoon nañ possibilité dem foofu def ay résultat donc ci am yaakaar rek ne peut-être euh, que situation bi dina décanté wu. bu ko defee dañuy àddu jëmale ci ponk bu mujj gi dañeel été ne dal leen ak jàmm li gën a fës ci xëtu yéenekaay bokk na nag diirante mbagg gi nar a am diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ci jongante législative yi ñu jëm daanaka moom la yéenekaay yu bari xëyee tey ci altine Macky Sall wag na monchu yëreem loolee la bés bi le jour daal di fësal boole ci di samp laajte ndaxam ki fi nekkoon jiitu réew dana amal campagne am déet ak gannaaw li mu fësal ci bataaxal bi mu jagleel Emmanuel Macron Macky Sall delloo na 4 pays ngir waajal jongante yi nar am ki ko xamle di source a boole ci di ñëwaat ci lu xew ci langu politique bi fii ci Sénégal ba ñu tasee pencum ndawi réew mi ba tey ak li tax ñu jox ko lenge yi rek ngir mu doon tête de liste bu coalition takku wàllu Sénégal Macky Sall tekki na ndombo tànkam ngir tëkku Ousmane Sonko fës ci yëglekaay bi di les ca loolee enquête quotidien di ko méngaleeg jongante njiitum réew bi jàll fi nga xamante ne nag ndawu Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay ak ndawu Macky Sall di Amadou Ba ñoo doon jàmmaarloo bile yoon nag kenn du dox seen diggante te dina doon làmb bu nar a jax bu ñu sukkandikoo ci boobee journal Les Échos di ci porox ndoolu rek ngir ñëwaat ci anam yi tax ki fi nekkoon njiitu réew daal di bëgg a dellu si li ko waral moo di responsabilité politique yu dëkk bi ñoo da di nag régime bu bees bi moo ngi topp ñi fi nekkoon ci nguur gi di leen toppee nag luubal alalu askan wi Macky Sall ak ñooñam nag di teggi ma ci vox populi ca waxtu woowee nag daanaka jàmm moo ngi ci yoonu dellu si nag soxal ci wàllum kom ndaxte fan yu ñu génn agence de notation mu diis dafa déclassé Sénégal Fonds monétaire international nag moo daal di ñëw ngir jàppal tànk Sonko ak Jomaay bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil Sénégal ak FMI daal di nañ joxante loxo liñ leen dikk FMI ak njiitu sénégalais yi nag dogoo nañ xàccandoo dóorandoo loole le Sud Quotidien daal di fësal Bassirou Diomaye Faye di rafetlu nag doxaliinu FMI ngir rek Sénégal gën a ñoŋ ci wàllum koom soxal njàng meeg njàngale bi tey nag la école daal ubbiwaat ay buntam lu ëpp ñeenti million ndaw nag ñu leen di xaarandi ci classe yi jëwriñ gi gàlloo éducation nationale di ci porox ndool rek ngir daal di fësal arrêté ministériel bu soxal njàng meeg njàngale mi ki ko fësal di journal bu groupe Sud Communication buñ fa jógee ñu daal di wutali quotidien bu groupe Futur Média fi nga xamante ni nag observateur ci xëtam ñuy jox kàddu jëwriñ gi gàlloo jàng Moustapha Guirassy moom nag muy woy di xamle ni école yëpp dañoo war a nangu ku nekk gëm-gëmam nga ko fay daal di andi ñu daal di koy jeexaleeg tàggati yaram ak équipe nationale bu Sénégal ak Ismaïl Jakobs Ismaïl Jakobs moomee nag dafa déclaré forfait ki koy utu di Abdou Aziz Ndiaye liy ñuul ci soow mi rek moo di Ismaïl Jakobs démb dafa football ak clubam Galatasaray loole nag di jur wax balaa ñoo jëm ci match Sénégal Malawi nag aljuma bi ñu jëm ca waxtu wëy li wone mëninam bile yoon mu amal ab doublé bu ñu sukkandikoo ci record quotidien jàngeen jëf. jërëjëf Oumar Thiam mbokk yi jaare fi buur xibaar yi jaajëfal lu baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV di dajal ci xibaar yi ci dënk ci kàllaama nasaraan ak wolof jàngeen jëf.